salaamaaleykum les téléspectateurs de RTT TV ñu ngi leen di nuyu di leen jiyaar di leen màggal bu baax a baax tey nag bu ngeen gisee suñu taxawaay bi ñu ngi fii ci euh, dëkk bu sell bi di Touba Mbacké fii nag ñu ngi fii Ngiraneen ci kër euh, sëñ Abdou Samane Mbacké di sët ci Mouhamadou Fadal Mbacké mi waral bés bi tey ñu ngi fii nag ci këram seet si woon ko ñëw ziyaar si ko ñoo ànd ak taalibe yi dugg ci biir sama cameraman nañ dugg ci barkeb say ci faddilu mi yàlla dool dinoo ay maqaama yalaw uqal bukaaw ala saddaati maay bëgg a way tey jii ma way fi sangub góor ñépp yalaw kookaa di seex fallu kookaa màgg moora yi mbir moo gën ñu njëkk ña gën ñi ñépp yalaw kookaa di seex fallu kooka mag moo rëy mbir moo gën ñu njëkk ñëpp gën ñi ñëpp yàlla ku mel ni ma musu fi am ku dootu fi am te dootu am fii ci duniya wóor na yàlla tey jii ma jooy sayxuna seex fàllu mbar ma ni mes mboolem lu nekk ci duniya jooy na yàlla tey jii ma jooy sayxuna seex fàllu mbar ma ni mes mboolem lu nekk ci duniya jooy na yàllaw murit yi xaadir yi ak tiijaan yi ko jooy ak suuf si ak asamaan seeg ndoxum yàllaw ak jant weer wi ak biddi wi ko jooy ak doj yi ak njaayi àll yàllaw malaayika ginne ak yoneen yi ko jooy ak sabaya xutbu yaag wali yàllaw wiital na ru yi ci duniyaa yépp kullu ko cey seex fallu yàlla jullit yi ak nguur gi ak àddina ñépp ko jooy nun ñépp jooy ko ngir baa xam ga yàlla nawet bi jooy na ba far gàncax gi lott na tey ru yépp nan ngir seex fallu yàlla mboolem lu na ci duniyaa lépp lépp a ko jooy lu nu xam ak xamul mboolem lépp yàllaaw masi lañag moo way way wi di sàkku yi ngërëm ci yàlla ak ci sëriñ Tuubaa fa yàllaaw masi way way wi di sàkku yi ngërëm ci yàlla ak ci sëriñ Maïnama Cheikh Fallou ay yëf moo tax ma xam boot ya ak sañ-sañ ya. dañu ma dama bëgg sama gone yi amee sëriñ te sëriñ sama rek moo ci ba ma ko xëy yàgg na ma ne ko bu fi ñëwee bu soo yàlla ni ko bëggee ni ko amee ba fi ñëwee foofu ñëpp jébbal la ren jii muy ñëw si arse la moo jigéen ñi bëgg ñaanal leen ñaanal sunu yaay jéem mu yàgg sunu kanam ak sañ góor yi ak sañ muudu ñoom ak daara bi ñëpp rek yéene woon nañ mu gën a yaatu lii waaye xar-xar xaru jamono rek saa sun xol sedd guy ñoo ngi ñaan yàlla yàggale fa fekk ndax bàyyi daane ko wax da wax naa damay ñaan yàlla bu fi ñëwee ñuy toog leen xaar fee mbooloo jéen ngeen doog a dugg loolu daa ñaan waaw loolu nag ñoo koy gën a fedd le baax ñaan yàlla yàggale fee fekk yàgg laa siyaar si sa suñ borom yokk uh, wërsëg ak kàttan ba ba lépp luñ ci yéene rek ñu defee ko lu kaw suñ jot waaw lool rek lañ ci dolli ñoo sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyam jiit yàlla du ma ko fàtte mukk ngir jëm si billaay du ma ko fàtte ba tax du ma wax kiilaako naa loo wax rek baax na jaadaa wax kon waxal waaye ñu ngi sant baax mais doolu ñu ko daanam yàgg suñu kanam waaw ñu koy xooli bëtu bàyyam di a bàyyi ni moom kenn mënu ko wecc ci suñu kanam suñu digg yow kenn mënu ko wecc waaw waaye a ñaan a yàlla mi xëy moo am a yàlla na ko yàlla yërëm a jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah sëriñ bu mu ne ak mbokki taalibe yëpp yu dëkk ci tund bi yëpp nee na mi ngi nuyu mbooloo mi ñu fi teew ñëpp. di yóbbante ay nuyoo ci nga xam ne amoon nañ yéenay tew te yàlla dogal tewuñu mi ngi leen yóbbante ay nuyoo bu baax a baax. yëkkati ay kàddu nag. feddali kàddu yéen fa wax rek. muy kàddu yi sant. ak ay ñaan. ak ay ngërëm. mu ànd xol bu sedd guy. nee na mi ngi sant yàlla bu baax. bim ñu mayee ñu teewoon fi daaw te ñaan ko yàlla nañ ko fekkee ren kon mi ngi sant yàlla bu baax bi ñu ko fekkee di ñaan yàlla ci barke sëñ Touba yàlla nañ ko fekke waat dégeen déwén ak at yu baree baree bari ci barke sëñ Touba mi ngi yóbbante ay nuyoo itam mboolem waa daayira bi yëpp ni ko sëñ Moudou sëñ Moudou Badiane ak mboolem mbokki taalibe yi nga xam ne ñoo nekk foofu di ñaan yàlla ci barke sañ Touba yitte leen tee ba yàlla dogal mënuñoo ñëw yàlla na yàlla suñu borom saafaral leen ko képp ku tawat yàlla suñu borom saafaral ko barke sëñ Touba di nuyu itam kilifa ngeen àndal sëñ Modou Ba sëñ muudu Jami ak sëñ Gora Ndiaye ak soxna muslim ak ñoo xam ne ñooy mag ñi waaye di jaar ci ñoom ab nuyoo di nuyu mboolem ñi ngeen àndal ci daayira bi góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi di rafetlu lool taxawaay bi ak pas-pas bi ak yéene ji xam nañ taxawaay bu yàgg yàgg yàgg ak yéene ji lu jiitu tey jii moo tax duñ fàttaliku nag. duñ mën a ñàkk fàttaliku sëriñ Moustapha Jiite mi nga xamante si nii ginnaaw bu yàlla wee lii lépp ci pasteefam ak taxawaayam ci la sosoo mu defoon ci kàttanam yëpp ak yéene àndante woon ak yéen moom tamit muy ànd ak ci yéene jooju ak pas-pas boobu ba yàlla sunu borom dogal mu jiitu ji ñu koy ñaan yàlla xaare ko àjjana ak mboolem ñu bokkaloon liggéey te jiitu ji ak mboolem ñi nga xam ne yàlla dogal na jiitu di ñaan yàlla yàlla xaare la àjjana yàlla yërëm leen te jéggal leen ci barke sëñ Touba ñun ñu fi desandi seen ginnaaw yàlla sunu boroom yàggal ñu fi ba liggéey bi ñu àndoon ñu wéyali ci lu bëree bëree bari mottali seen yéene mottali suñu yéene ñun tam te lépp luñ fi jëf suñu gën suñu ginnaaw yàlla yàlla jot leen ci yool boobu ci barke sëñ Tuubaa nee na mi ngi sant ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen bàyyiwuñ kenn xam na nañ yéene ji xam nañ pas bi tam kon nag sant nañ bu baax a baax ni ko sëñ Mourou ja waxee rek ñu ngi sant tamit njabootu sëñ Moustapha Jiite ñu soowee bu ak Thierno ak mboolam njaboot gi yëpp li sëñ musafa ji de yéene woon leen ci loolu wax dëgg yàlla ñu ngi ca baax ñu ngi ciy góorgóor bu baax nag kon nag mi ngi leen di ñaanal baax di mu ñaanal mboolam yëpp yàlla suñu borom guddal seen fan may leen jàmm ak wér ak xéwal yu bëree bëri. soxna yi itam mi ngi leen a ñaanal yàlla sunu borom sàmm leen yàlla aar njaboot yi sàmm njaboot yi te barkeel leen te li ngeen ci yéen lépp ak li ngeen ci yaakaar yàlla sunu borom mottali ko barke sëñ Touba barke Cheikh Amadou Fadal ne ko sëñ Moudou Badiane waxee rek ñu ngi àndal tamit tu tànk yi kenn ku ne am fu mu yëngatu ak lu muy sàkku ak lu muy sabablu mi ngi ñaan ci barke sëñ Fallou yàlla yàlla faj aajo yëpp. wépp aaju bu fa waay indaale yàlla yàlla fajal ko ko barke sëñ Fallou lépp luy tawat yàlla saafara barke sëñ Fallou yàlla ñu ngi ñaan daal yàlla ñu fi téewaat na ngeen déwén ñëpp ñu fekk kenn bañ a lépp lu fi aajo yàlla na yàlla ñu ko lépp lu fi tawat yàlla saafara ko barke sëñ Touba barke sëñ Amadou Fadal daal bëgg bu baax xolam sedd na lool mi ngi yóbbante ay nuyoo ñëpp xam naa ne ku ñëwut xolam ak xelam ak yéeneem ak jëfam lépp teew na fi kon nag mi ngi leen di bàyyi xel baax dina ñaanal baax a baax ñi nga xam ne ay gàllankoor moo leen téye ba mënuñoo ñëw ren yàlla na yàlla teg gàllankoor yooyu bu ne ñu àndati ñun ñëpp niñ ko daan defee barke sëñ Tuubaa neen sant na bu baax gërëm leen baax jërë ngeen jëf sëñ Abdou Samane Mbacke mi toog ibnu Cheikh Mamadou Moustapha ibnu Cheikh Mamadou Fallal di leen xamal ne sëñ Abdou mii mën na noo seere lu bari fii fii man ñi fi njëkk a samp néeg ñi doon yett ñax man ci laa bokk ñun ñoo njëkk a mbaar jàkka ji kon di leen xamal ne duñ ko toppee nun xam nañ ko sëñ Mourou Samay lan ko toppee ibnu Cheikh Mamadou Moustapha Fall man sëñ Fall moo ñaanaloon sama maam sama pap sama pap doon dawal oto amul permis kàddug kon man su ma dawee topp ci ginnaawam xam naa fi ma daw jëm di leen xamal ne itam lii da ko fee xaar pour la ndigalu waay juróom man de magam laa jokk woon keroog ba may jokk dafa ne ma lépp lu waaye di jàpp bu la sa way jur woon na nga bàyyi lépp wuy ji sa way bu dee benn joxal sa baay bu dee ñaar joxal sa yaay ba ci ñett bu dee see indil ma te man lu lew nag da nga julli waxtu juróom loolu la magam tegoon samay loxo ba mu tëddee Tuubaa nekk ci ginnaawam mu jël leen teg sama ginnaaw su ma wootee kenn du gàntal dañ may wuy si ngir jëmam ji lañ wuy si wuy si wuñ ma maa ngi koy ñaan nag fanu gudd ak wér yàlla na sut Seex Mamadou Moustapha Fall ak fan te yor barke ba di leen xamal ne nag dañoo mën a wax ci mbooloo waaye ñu féetale sama ginnaaw moom wéy nañ ndigal man maa des te dama koy ñaan mu ñaan fanu gudd ak wér ak kattan ak barke bu ñu toppee ci ginnaawam di wéy ci ndigalam di bàyyi ay tereem tam di ko ñaanal baax a baax mboolem ku fi teew ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fekk bis bii waaw ci barke sëñ Fall mi nga xam ne moo fi dajal ñëpp tey waaw wasalaamaaleykum wa rahmatullah ñu àndal ak mhm. sëriñ bi mhm. waxoon naa ko daaw mhm. bi ñu fiy ñëw yàlla dogal na jëriñu woon télé ki xam na li may wax Thiès yëpp dañ koy seetaan waaye bi ñu jokkoo ci jëmmam fi ñu nekkoon te yokk nañ ba yëg ko barke Cheikhul Khadim di gën a jafe sa taalibe xewle mu mu dagg yiteem ñëw yendoog ñun cees cees yëpp bëgg loolu sag la ci ñun ñun taalibe kon nan ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér télévision bi it mbàkkee nga ñaan suñu borom defal ko tawféex bu baax ndax ba ni ñëw fii yoruñu ko woon waaye léegi yokku na ba lu toll ak fanweeri nit ku ci nekk di ca xëy di liggéey waaye loolu ñu ngi ko amee ci yokkute sa jëmm nga ñaan ci bu baax ñaanal ñii ñu àndal muy soxna yii ak sëñ góoram yi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ci kees nekkal la fa lépp lu mu woote si dul ñu ngi ci ginnaawam waaw loolu moom ñu dalal ci bu baax te xam ne moom mi ku mat jëwriñ la waxtu wi moo xat waaye ñu ngi siyaare bu baax a baax di indi siyaare waa Thiès yëpp di ñaan nga yàgg fi lool te ànd ak wér barke Cheikhul Khadim sëriñ bi mu ne asalaamaaleykum wa rahmatullah waa dayratu salaam Touba Thiès mee na mi ngi nuyu ñu fi teew ñëpp mag ak ndaw góor ak jigéen di jaar la ci nuyoo bi tamit jëwrin sëriñ góor a ñaan di ko sàkk mu yónnee ko ci mboole mbokk taalibe yëpp ñu fi teew ak ñu amoon yéene teew te yàlla dogal teewuñu waaye seen yéene ak seen jëf teew na muy mag ak ndaw góor ak jigéen mu ngi yóbbante ci ay nuyoo bu baax a baax muy kàddu cantam di leen santam bu baax di leen gërëm bu baax di rafetlu lool seen taxawaay. ak seen pësëf ndax wax dëgg yàlla daayira bi ben ko taxawele yàggul dara yàgguwul loolu waaye seen pësëf ak seen yéene ak seen cofeel moo tax mu agsi fii mu agsi te xam na ne incha allahu rabbi kanam la jëm ndax xam na ne pësëf bi mate na ko yéene jëm mate na ko cofeel gi tam mate na ko. mi ngi leen ñaanal yàlla ci barke sëñ Touba yàlla sunu borom gën leen a sàmm dool leen jàmm dool leen tawféex liggéey bi tam ñu ñaan ci barke sëñ Touba yàlla yàlla nangu leen ko bu ko nangoo ba noppi yàlla na ko fulandi def ko njariñul àdduna njariñul alaxira barke sëñ Touba liggéey bi li muy rëy rey nee nañ mi ngi koy faral di wax góor yéen a ji moo ko ëpp. bu ñu ñaan yàlla bu fay jëf ji ba noppi yàlla fa yàlla yéene jooju di li si kanam tam muy ay yéene ñu ñaan yàlla sunu borom kàttanal leen doon leen jàmm doon leen wér doon leen xéwal ba li ngeen ci yéene lépp yàlla sunu borom motu leen leen ko bëggee lépp lu jëm ci liggéey sëñ Tuubaa lépp lu jëm ci njaboot gi lépp lu baax yàlla kàttanal leen si ba ngeen def ci li ci bëggoon ci barke sëñ Touba nee na mi ngi leen sant bu baax di sant bu baax sëñ Mourou Seck ni mu ko waxee rek pas-pasam ak yéenam rëy na lool. li ngeen xam li ngeen yëngatu ñu ngi ñaan yàlla ci barke sañ Fallou ni mu ko waxee rek ni mu waxee ne yokk na ñaan yàlla ci barke sëñ Touba bu déwénee yàlla nañ fi déwénaat te lu ñu yokk woon. yàlla na gën a yokk te gën a barke barke sëñ Tuubaa nee mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di santaat góor bu baax taxawaayam ak pas-pasam waxtu wu ne mi ngi ko jottali taxawaayu mbokk taalibe yi seen pas ak seen yéene taalibe yi tamit ju bëri bu ñu jotee ñu ngi jottali taxawaayam sëñ góor ak pas kon nag mi leen sant baax di leen gërëm ñaan yàlla suñu borom àggal ànd bi lool lépp lu ngeen jëf yàlla suñu borom nangul leen ko bark sëñ Tuubaa dafa leen ci tawféex aajo ji faju àddina ak àllaaxira barke sëñ Amadou Fadal yàlla nañ fi teewaat na ngeen déwén kenn bañ a manqué yokk ba yëkku fànn yëpp nag wér jàmm xéewal tawféex barke sëñ Fallou jërë ngeen jëf asalaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum Ousmane la président Dahiratoul salaam ah muy nuyu ñëpp rek di mbokk taalibe yi nga xam ne ñu ngi nekk ci biir kër sëñ bi te nekk ci waañ wi ak ñu nekkul ci waañ wi ak dayra yi nga xam ne ñoo jiite dayra yëpp yi nekk ci biir kër sëñ Abdou Samane Mbacke ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di leen wax rek ne tey bisu Kazu-Rajab la bisu kër sëñ Fallou ñu nekk fii ci biir kër sëñ Abdou Samane Mbacke di liggéeyal sëñ Abdou Samane Mbacke ci ci ci waañ wi waaw man maay président dayra yi maanaam dayra yi fii ci biir kër sëñ Abdou Samane Mbacke mën na lu mat ay juróom fukki dayre Ah, man nag damaa nekk njiitu président daayira yëpp mais bu dee ci liggéey bi nga xam ne moo nekk fii ci biir waañ wi ah, ci sëñ Modou Mbaye ak Cheikh Waaj ñoom ñoo yore wàllu waañ wi ñun nag yàlla def na ñun polyvalent leen rek ci biir di xool liggéey bi ah, ni muy taxawee waaye ñun en tant que Ousmane Ndoye depuis bi sasee dayratu salaam ba léegi dayre ni muy doxee mooy fédération la mais nag bu dee màggalu kas Rajab ñun la yàlla def ñun ñoo nekk ci bopp bi dayra yi nag dañuy liggéey seenum liggéey dajale ko bu ñëwee ñëw jibal jébbal ñu liggéey bi ñu ànd ak ñoom ak kat ci biir waañ wi di liggéey waaw chaque année rek bu nee màggal gi des na fukki fan dañuy arrêté suñuy liggéey ngir liggéeyal sëñ Abdou Samane Mbacke yaakaar naa bi talaata bi passé lañ dajale addee yëpp jébbal ko sëñ Abdou Samane Mbacke depuis boobu wàcc ñu ñi bu ñu xëyee fi la ñuy xëy si ba màggal gi jeex fi la ñuy xëy si waaw loolu rek la liggéey bi liñ ciy dolli rek di ci doo mooy euh, muy dayra yi ñu xam ne liggéey kër Serigne Abdou Samad Mbacké du jeex te chaque jour ñi ngi takk laxasaay yi ñuy soññi président dayra yi di leen xamal na leen Ousmane Ndoye nekk ci bopp bi ak ka nekk ci àll ba ak ñun ñëpp ñoo ci bokk yam ñëpp nañ xam ne Ousmane Ndoye dafa nekk ci kanam rek waaye liggéey bi ñun taalibe yi yëpp ñoo koy bokk ànd di ko liggéey euh, liggéey bu kër Serigne Abdou Samad Mbacké nag gone ak mag ak jigéen ñëpp ñoo ci bokkul takk laxasaay rawatina fédération bi ñu ciy liggéey liggéey ba am solo ndax ginnaaw bi ñu sampee daayira ba pare dañoo taxawal fédération boo xam ne moo ëmbaat daayira yi ku mel ni sëñ Mbay sekk moo ko jiite dëkk Mbuur muy doon ay jàmbaar yoo xam ne wax dëgg yàlla seen taxawaay day gën a yokk waaye wàññeekuwul ah, sëñ bi nag am na ci ak kontaan wax dëgg yàlla bu baax ci liggéey bi nga xam ne moom lañ ko taxawe sama kàddu gu mujj nag mooy kàddu sant. ak sant leen yéen presse bi wax dëgg yàlla yéen ñi def si interview bi ndax nag gis nañ sama euh, sëñ Seck mu doon koo xam ne depuis bi ñu àndee ànd ak sëñ bi mu dem euh, Thiès fekk si ko dafa ak taalibeem dafa gën a dëggu muy màggal gu mag yi dañuy ñëw fii di fekk sëñ bi ndax sëñ bi réccuwul lu mu doon xamee ak ñoom te ñoom wan nañ ak taalibe goo xam ne wan nañ ne sëñ Abdou Samane Mbacke kat am na presse ndax mën nañ ne lii ñun ab rajo lañ fi daan yabal mu ñëw fi mais depuis boobu ba léegi yéen yéen fi ñëw kon li leen di ñaanal mooy li ngeen xam ne yéen ngi ci muy site bi yal na ko yàlla yokk mu doon ay télé ak ay rajo yu bari mu doon loo xam ne entreprise lay doon. leneen li ci tege ma ko suy dolli mooy suma mbokk taalibe yi ñu xam ne ku ñëw bul toog rek ne man boolewul ma ci wala bokkuma ci ku ñëw na nga takk laxasaay sa ndigg dem liggéeyal ci liggéey bi loo gis ne mën nga cee jàpp rek bul xaal ko la ci soññi na nga ci jàpp ndax nag liggéey bi xay na euh, jëwriñ ji wala ñenn mën naa bañ a yegg ci ñëpp. waaye ku agsi rek xamal na dugg nga ci biir liggéey bi ñi ngi sant waa daayira yëpp yéen ñi ngi leen di sant di ñaanal nag sunu sëriñ bi nga xam ne moom la ñu yàlla booleel muy sëriñ Abdou Samane Mbacke waaye depuis bi ñu ci moom ànd ak moom ba léegi rëcc wuñ lañ doon ànd moom ndax kenn ku ne boo nattee sa bopp fi nga tolloon bi ngay dugg ci moom yëg nga ci sa bopp bu baax kon ak ñaanam mi ngi yegg si ñun kon li ñuy dolli di ko ñaanal yàlla nag fi yàlla yàggal ba li muy yéenee liggéeyal maamam ba xaadimu rasul ak maam Serigne Fallou ak waajurum wa sëñ Moustapha Fallilou yàlla yàggal ko bi ba mu defe ko ni mu ko bëggee ànd ko ak taalib yi ñu ngi leen sant bu baax jërë ngeen jëf. mbokk taalib yëpp te di xamal ne comme niñ ko ni ko ni ko jëwriñ Ousmane waxee rek fii li fi daje ci daayira ëpp na ñaar fukk ak juróom wala mala ñaar fukk ak juróom benn te ñun ñëpp ñoo boole xol nekk benn ndax sëñ bi moom noonu la ko bëggee mën naa ne ñi ngi jóge Dakar ñi ngi jóge mbuur ñi ngi jóge fenn fu nekk ñii Touba yaay kenn ku nekk fa nga jóge ba ñëw ñii Fatick ak ñi ne ci dëkk bi li daayira yi nekk ci dëkk bi te ñoom ñëpp yéene lañ am ngir liggéeyal sëñ bi rek ah non loolu lépp sëñ bi benn waañ la ko def ñii tàngal kafe yi ak ñi nga xam ne ñooy defar ginaar yi ak ñi nga xam ne ñoo yore yàlla waa wàllu nag yeeg yooyu maanaam yëpp bi ci benn waañ lañ ko def waa dañ ko def ay par ay par kees lañ ko def rek waaw mais lépp ci benn waañ bi lañ ko def ak ñi defar ataaya yeeg ñëpp ci benn waañ lañ ko def waaw daaro yëpp maa ngi koo doon benn waaw daaro yëpp maa ngi koo doon benn di ko liggéey liggéey bu rafet nag liggéey bu sell comme ni ko sëñ bi bëggee loole lépp nag ci tàggatam la moom lépp ci tàggatam la moo ko tàggata rek bañ bañ bañ bañ bañ doxale ko noonu waaw lépp rafet nag ñëpp kontaan nañ waaw ñu ngi leen di sant yéen tamit bu baax a baax a baax a baax. waaw Massamba Niass la. waaw liggéey bi de moom moom moom sant Serigne Touba rek di sant suñu yaakaar yi Cheikh Abdou Samad di ñaan mu yàgg fi lool na tam wér noonu rek maanaam maagal gu ne bu ñëwee nii rek ñetti fan yi maagal gi yëpp moom ahlu kafe waa daayira xidma ñoo ko ñoo ko yor ànd kaag mbooloo mbokki taalibe yëpp ko ci waaye mën a jóge ak ku jóge fu ne boo ñëwee rek ñu ànd kaag yow dund ko dund Baay Faal rek dund Baay Faal rek ahlu xidma waaw ñu a góorgóorluwaat rek comme li ñu suñu sëñ bi wax démb rek yéen fu ngeen toll rek dee leen ne ci waar wi waaru Baay Faal ab bool sax bu ngeen ko séenee njëkkanti leen ko raxas ko ku ci séenu matt gun war a xar bu la ci kenn njëkk ku ci am ka boo gisee kàmb gun war a gas gas ko mun waree tuurim ndox it yaa ci njëkk waaw en xit ma waar blanc rek maanaam fu ñu toll ci waar rek café gi nag moom saa su ne nii lay doxee moom waaw ñetti fan yëpp moom heure boo ñëwee fii moom daan la jox café amul benn heure na ak heure bu mu mën a doon jëwri ni café gi nag moom ki nga moom laa bokk liggéey bi saa su ne ñu bokk fi nekk nag Ibrahima Niass la ñëpp gën koo xam ci Niass café daanaka màggal gu ne ñoo fi bokk nekkandoo chaque jour ak mboolam Baye Fall yëpp di sant suñu jëwriñ nag bu baax Serigne Cheikh mbay ni muy taxawee ci liggéey bi moom macha allah ak mbokk taalibe bi mu àndal yëpp ak mbokk njëgee yëpp kon ma jox suma jëwriñ aw siyaarawaat rek di leen màggal ci Kazu Rajab bi comme li jëwriñ Samba wax rek ahlu kin ma xin ma moom liggéey rek lañ ko xamee ñun bu ñu ñëwee dañuy soldat yoo xam ne dañuy ne ci waañ wi daal ne si café gi loolu la ñu sëñ bi sant fépp fu war a am kafe daal dañ ne moom dee leen fa dem café ba dara du manqué bu ko defee gaa ñi ñeneen ñi ngi ñi ngi topp ci waañu ñoom it bokk ci raxas bi ak waañ bi toog bee yàq bi yooyu waaw di ñaan nag saa bu ne rek muy yokk rek ñu am ay xéewal daal yu ñu ko mën a defee saa bu ne muy gën di am ay xéewal daal soldat ji di teew waaw ñu jox seen jawriñ Ndiaga mu àggale waaw santaat Serigne Touba rek bu wér a wér a wér di sant sëriñ Abdou Samane Mbacke sunu yaakaar waaw ndax moom moo ñu dimbale ndax ku la bëgg rek moo lay liggéeyloo ci yoonu sëriñ Touba ñoo ngi koy sant bu bëri daal Mbacke di ko ñaanal mu yàgg loolu te wér suñu jëwriñ nag bu ñu waxee rek lépp mën na wasalaam.